Euh, dafa am loo xamante ni si euh, dafa am ci diggante euh, mbër yi ci déclaration bi nga xam ministre de la justice def na ko. Mhm. donc président des lutteurs du Sénégal mu di Gris Bordeaux daf ci mhm. bëgg a yëkkati ay kàddu. ñi nga Gris Bordeaux maître Malick Sall. maître Malick Sall di ministre de la justice. Mhm. li mu wax que ni ci mbër yi donc président des lutteurs du Sénégal di Gris Bordeaux. ñi nga moom en direct Gris ñu ngi lay nuyu bu baax a baax champion. waaw Cheikhou bi. maa ngi laa jaar di la kontaanee ci soogi. Mm-hmm. ak sa jigéen boobu sama mbokk moom. Mm-hmm. soxna Alioune Ndione maa ngi laa jaar di nuyu auditeur seen biir yëpp. di jaar lu bëri di leen taragal di leen ñaanal mm-hmm. jàmm. waaw loolu moom bu ñu ko déggee rek sax ñu ko déggee ah. propos yooyu ñu ko déggee moom lañ ko déggee suñu ñu ñuy inter ñu ñu fiy interpellé may woo yaa ngi dégg ay appel ci Mm-hmm. mooy woo partout di ko naqarlu topp parce que c' est des yoo xam ne insensibles kilifa war a ko yëkkati par rapport ak li xew parce que nag li xew moom ku gis nan na nen a ngi tey tey euh, seize mille habitants du Sénégal mënuñu mënuñu leen jël ne leen ñu wàccoon ci tali bi yëpp keroog doon jeunesse nga xam ne dañu dañu jugoon euh, di di di yëngal dëkk

man dama ko déggee nii nit ñi dama ko wax ma seetaan ko ma dégg propos ministre de la justice dama lu ma naqare trop parce que loolu du du du du du du ay bàyyi kàddu te te te dinañ ci jël ay dinañ ci jël ay matuwaay yu mat sëkk parce que tey loolu duñ ko duñ ko ko parce que tuuma la ah. Uh-huh. tuuma la parce que tey loolu moom te may wax ci yow nii rek euh, je discuter avec euh, l'avocat de cette association. pour que moom en personne maanaam il faut que nga porte ko plainte d' abord ñu tey rek dinañ porte plainte parce que tey def li wax tay da ko wax ci benn ci les lutteurs te jow boo xoolee jusqu'à présent à nos jours bi problème mo mbass mi amé ak jafe yi am ci dëkk bi yëpp malgré que état état du Sénégal amul lenn loo xam ne tey contribué ci def ko ci lamb ak jafe-jafe yi ñu am yëpp mais malgré tout ça ñu ngi ànd ak suñu ay personnalité ñu ngi ànd ak suñu piété ñu ngi ànd ak suñu li dëkk bi méttee laal secteur yëpp noonu la ñu laalee. mais tey nag situation bu mel nii bu amee tey état du wat si jël ay leçon xam ne jeunesse bu désespé bu désespéré jeunesse bu tuy jeunesse bu lañ nakaay ñoo waxtoon tay bi di am di wane seen seen seen mécontentement ci doxal bari bari bari bëri bëri au que tey ñu ci ay leçon ku ci nekk am si jàngat ku ci nekk toog seetlu yow amul lenn la nga toog te France 24 nga mu bëgg a impliqué jël problème bi nga ne les lutteurs yi nga xam ne dañu gën a liggéey dañu dañu toog lu yàgg bëriwuñu ñoo wàccoon si tali bi c'est du n'importe quoi. bu ñu déggee bu ñu déggee wax bi Giri Bordeaux mooy que ni euh, yow yaay président des lutteurs du Sénégal. donc yéen mbër yi di ngeen manko waxtaan ak seen avocat porte plainte ministre de la justice di euh, monsieur Malick Sall pour propos yi nga xam ni Eh, wax na ko ci France 24 que ni ñi doon eh, ñi doon eh, manifester wu ay mbër lañ yoo xam ne dañoo désespéré bëriwuñu entraîné ba am doole ñoom ñoo génn doon révolté wu te di ngeen ci def déclaration suma jumut le plus rapidement possible ko kay moom amul kooku kay le plus rapidement kooku mën loolu mën ñu ëpp na bàyyi ëpp ñu koy bàyyi muy set parce que duuma la tey mu Sénégal quatorze les les seize du Sénégal dëkk du Sénégal diaspora bi yëpp bi nga xam ne nekk la Sénégal nekk kaw ba nga xam ne suñu yaay suñu paax yi seen seen activité yi dara doxul. dëkk bi nga xam ne ku nekk kenn nelawul yow tey jafe-jafe yooyu bu am ba yàlla ba yàlla sax def ci ndox mu sedd ba nga ba tey ngay toog may wax may ngay wax yow loolu doon état bi jël ay leçon toog si jàngaat xoolaat ñu jeunesse bi jeunesse la bu ñu war a taxaw jeunesse la bu kër bi jeunesse la boo xam ne tey ñii tey dañu seen yaakaar dafa tas yu bari. vous ay mhm. le président de la république générale, depuis ay perdu est capable de faire n'importe quoi mhm. Ah, jërëjëf Gris jërëjëf Gris Bordeaux on va